salam man la Baba Elite Marketing Pro souvent gars dañ may laaj ndax euh, camping car mo taxone suñu chargement c'était longtemps hein. mais dama juste me vidéo pour gars am si une idée de euh, ce qu'on fait ici exactement Corée amna modèle camping car bi marque auto Hyundai la ñom ñoo transformer camping car mooy oto yi gars yi jël pour souvent mën nañ si fanaan wala mën nañ ko jël di ko louer pour touristes yeeg yooyu ku si bëgg plus d'informations rek mën nañu bind suñu whatsapp 77 457 44 54 oto bi mën nañ ko am oto bu bees comme bii nii bu bees tàq la 0 km. la mais en même temps mën nañ ko am deuxième mai deuxième mai bi tamit day nekk oto bu clean daw soit benn 2 ans wala kii 3 ans day a accessoires yi ngay soxla ci auto bi daf ma vidéo bi tamit ku soxla euh, comme gris genre caterpillar yi nañ ko ko ko Sénégal procédure bi day parce que Corée Sénégal suñu conteneur yi def jours te procédure jënd chargement beeg yooyu lu mu jours kon kuy jënd auto yi peut-être mën nga calculer benn trois mois bu fekkee ne xaar bi di la sonal mën nañ liggéey ak yow incha allah jëndal la ko dugal la ko Sénégal maa ngi leen di ñaan ngeen abonné sama chaîne pour gis plus de vidéo wasalaam.